Hey Allah,

Africa.

أيوة محمودة لسوالك سوالك سوالك أيوة قدر محمود قدر محمود قدر محمود أتتها المجامع مجامع مجامع وصف الشخصية hùng binh gia والله فمن أين تدري فمن أين تدري فمن أين تدري من ترى بعد فعلة بعد رأس ما الله أنتم وأنا صبي مولانا سفيك العبول ومنجد ومنجد ألم تعلم أني على الشمع بايع بايع سر باب Cheikh Tidiane yàlla yi oh. ku sopp Cheikh Seydi Ahmad Tidiane yàlla yi Cheikh Tidiane yàlla yi aywa ku bëgg Seydi Ahmad والتميز جامع وصف تدمونتي إلى مهلتي يا صاحي أنا طامع أنا طامع أنا طامع mooy tëkku yi xam-xam yu sell yi yi wër sa yàlla est-ce que Cheikh Tidiane suru gi mooy tëbb yi xam-xam yu sell yu rëy ak i wilaya yow Cheikh Tidiane sa ku fekkoon bu yow fii am nawet bi am ay njëriñ di fi fekk yow Cheikh Tidiane ak kari mu xalaat yi woote bi bi nisbati bi nisbati لأصطف بعر فارغ وهي اللوامع اللوامع نخ زكاء وفاء وفاء بل سخاء أناة وحلم وصبر إنه متوالع متوالع أسلوب الشيخ تفردا تفردا فجعلك بالمولى بالمولى مع الخير الشانع خير الشانع لقد حرم المولى عليك تمامحا بأن تجمع البحتين والحكم الشائع الشائع بالله ليس lan ko wax ci wolof ko wax ci wolof ko wax ci wolof dégg na bi ci njël dégg na bi ci njël ay bi tax ci garab ay bi tax ci garab ñuy tawat nan hedi ñuy tawat nan hedi ab li ci mu ko ko abdillah bi bi tax nan ko nax bi bi tax nan ko nax arutar wa ko ray arutar wa ko ray bi bi tax nan ko man bi bi tax nan ko man sadu ma wulu ma wulu ma bi di way bi di joy ku ku صعب أمول فتح لك أمول دوجك أو حرف أو حرف أو صدق احتجاج سيدي جاي مول قلبي في قلبي كمان كمان moo taxit maa ngi nii moo taxit maa ngi nii maa ngi saf waa ji daw waa ji ku sopp Seydi Ahmada Tijaan maa ngi leen naa xalaat dafa am ñaar yoo xam ne day tax nga yaakaar ne ku yiliful woon yaa ko yilif li may wax ni dama ko gën tënk bu baax a baax dafa am ñaar day tax nga foog ne koo wóorul woon yilif yaa ko yilif bi ci njëkk mooy am-am bi ci topp mooy xam-xam léeg-léeg xam-xam mën na laa jey ba nga yaakaar ni sa mag bi nga bokkal ndey ak baay yaa ko yilif déedéet yilifoo ko mënoo fexe fexe fexe ba mag mën na ne doon dayaa ko am amit dana tax nga dem ba foog ni yow ñi la mag yaa leen yilif loolu am am da koy def ñaar yooyu mënul ci tax benn mënta tax nga mag ki la mag c'est pas possible dafa am fu ñu mas daje li tax leeral lii tur ak siiw dafa soof nit ñi bëgg nañ ko trop mais dafa soof foofu noonu moo lay yóbbu foo xam ni soo dul nit tuuti rek dana tax sa kilifa yi diin bi nga yaakaar ni yàlla ñuy def yéen foo leen ñoo la dafa am fu ñu moom mu yor micro central am fu ay kilifa yu wax mu leen di jottali. man ma bëgg ci sànni kàddu moom mu nar maa jot leen ma ne ko déet aaral micro bi waawoon ma micro bi ma ne leen kii yéen ñi doon wax leen neexee ngeen jot li lool man maa ko war a jot leen ndey ak baay te mooma man maay rakkal man loolu dama bëgg mu leer bëggatuma sax ma dajeeg nit nit naan man gis naa sa rakk ci ku sama rakk sama mag la mooma mag bis bu ne wax ma ko te micro yaa ngi nii di ko jël ak leen mën ngeen koy estet moo ma mag du sama rak sama mag la. ma dem ma seetal wax nga dëgg wax nga dëgg wax nga dëgg. solo ndax jamono dafa lëkk dafa jaxasoo nit ñi may wax nii bu ma ñore nit ñi da am niveau bu ñu la nga am mag moo xam ni moo la yëlif foofu kenn xamu ko ñu bëgg la jël teg la ci sa kaw mag jooju bañal ba tëdd ci suuf boobu wut ko la bañ de maam Mansour Alaaji Maalik newoon na ko mu ëmmadu mu ko labbay ko mu ko wolof am na fas bu ñuy warloo nit nga bu ci war war fas woowu mooy mën nga ko attan nga ko sa daraja ëpp na lii sa daraja ëpp na lii da koy wax ñi nga xam yow ci biti mais ñi nga seen kanam nga juddu ñu yilif la mag la di sa mag di sa kilifa tey nga dem ba jamono soppeeku am fu la jamono teg rek nit ñi bëgg la gëmloo ne sa mag jooju yaa ko yilif yilifoo ko soo ko gëmee dox biir nga sama mag la su ma ñëwee ci jotaayam taxawaay bi ma ci bi may taxawee ci taxawaayu jotaayu ñëw bàyyi ñëpp génn ma sañ seen bopp ñëpp ñëw xaar ñëpp di ma déglu ma ñëw di way ndax li may def xam naa ko ma ko jóg gëddam man yonent bi laay tàggee. sallallahu alayhi wa sallam. yonent bi laay tàggee. dew ma fenn bu ma génnee ci programme oto bi ma jëlee sama buntu kër xale ko kese muy xam lan oto bi ma jëlee sama buntu kër moom sama buntu ñi may àndal fu ma dal fa la ñuy dal chauffeur bu ma àndal li may lekk ci ngay lekk ñooy bokk bool man kenn du ma ber loolu ñëpp xam nañ ko mais su loolu yëpp jàllee sa kilifa sa kilifa la su ma ko njëkkee ci moom rek ci moom rek laa sës dañu caax nag man ma ko waxee ñëpp ma wax mu ngoog su ma ko njëkkee ci moom ay magam ma fi ñoo wax kon nag dama bëgg mu leer bu sama rakk sama maga su ko defee ñu ngi lay ndokkeel bu baax a baax ci bis bi woote léegi sax bu ndox li dafa am solo woote ay nit ñëw ay kilifa ñëw nga déplacé leen sa mbokk yëpp génn am na lu muy firnde bu fekkoon ne jàmbur yi ngay demal man su léeg-léeg ma ñëw ci jotaay fekk ko fa damay rus li tax damay rus mooy moom damay ñëw fekk mu sol tenue bi ma organisé foofu nag sañ ko fa ñëwee ñu ubbi yoon yi waaw saa yi ñëw na karab karab ñu utal ma fa ma toog ma te moom ñu koy def sama mag mais ñooñu muy dem dama bëgg ñooñu ñu xam ni moom kilifa la dafa baax rek oyof serviable bi may servir nit ñi am naa leen fay. yàlla taxaw ci barke yonent bi salaay salaam maa ngi jégalu bu baax a baax a baax ñu soobee salaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu bu baax a baax di ko ziara ko bëggee ñu ngi si Babacar dara Oustaz Mouhamed Ndoye Diouf si Babacar yow mi yóbbu man xam naa ne ma leen yokk ci Oustaz Mouhamed Ndoye Diouf nga xam ne moom moo fàttal saa waay ci man saa waay nii bàyyi ma def alal kese noonu la nga saa waay def alal kese bàyyi ma dafa nangu ay xeetu. léegi daal di puus di dem di ànd kese yi fekk tamit la bokk ndóoy maa ko daan ataayal ataayal yu baax mais jéeg ba si yàgg yi saa yi suuf ma daan ak yeneen nag dama déglu di ndóoy rek di nuyu Oustaz nga xam ne moom sama sëriñ la fu nekk wax jàngal na ma alxuraan te Mor Kane nii sama sëriñ la jàngal na ma alxuraan tabaaraka baax waaw di nuyu sëñ Xaadim Gueye lay ziar bu baax a baax alaaj Ibrahima moom bëriñ si ah waaw sang bi ñu ma xale waaw man nag yàlla defal na ma chance bu leen ma gis ni man bu ma xale mag laa waaw mag laa mag laa de ay xaritu mag rek laa am maa sama xarit yëpp mën nañ mag ay xaritu mag rek laa am moo tax man leen mag laa waaw moom sama xarit la dama am maa ngi leen di baax a baax a baax a baax di la ziar xalifa yaa ngi may xool ay bët ma ne bàyyi ma tuuti rek xalifa yaa ngi may xool ay bët téeméeri jotaay rek fay am doo ma gis mukk may def lii li tax koy def xam naa ko man loolu def baax jafe laa xam. jafe téeméer ma xam ñun xam nañu. ñëw na jafe ëpp. at yu ma ko def ci taarix yow jotaay yu bëgg naa la. doo ngeen ma gis may def si. tam xarit tam xarit naa koy wax. tam xarit amul carte. ku ñëw bokk. boo ñëwee ku ñëw indi. boo ñëwul ba yónnee mais ñëwoo indiwoo ñëwoo ay ay yàq jàng. yaa yàq jàng amul gàtt rek dina rek bokk. sama jotaay la maa ko mën. jeex na bisimilah. su ko defee loolu rek laa doon wax. ñu baax oustaz Mbaye Sène Gueye di ko ziar bu baax a baax sama sama borom sama xel di ko ziar may nuyu naa ñëpp nag baax na kenn dëgg yàlla nuyu oustaz Amadou Amadou laaj boobu baax di ko ziar bu baax Amar Diagne ziar naa la. incha allahu taala buñ tabaskee ba mu am ay fan su ma juumoo ci juróomeelu fan ba. ñeenteel ba la de changé ngeen ko léegi na waaw te ñeenteel ba xam nga mbootaay gi danaa leen defal fii lu mel nii incha allah awa sees nag maa ngi koy dund bu baax man nii moom xam na ni bariwuma tànk këram waaye lii ma mu toog ñaari fan ñu déggantewul waaw ndax man sama jot moo bari man su ma demul jàkka ja wasifa yi wasifa yu ma maa ngi dem ci tànt yi ma yor sama jiire man dama am ay programme sama kër yëpp programme waaw mais aw seen sama xarit la sama soxna la bu baax maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di ko ñaanal yàlla am na la yàlla taxaw barkeel sa njaboot yëpp ci barkeel Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu tamit yëpp yàlla dogal ñu wàcce fukki kaamil ak juróom ngir bis bi ndam daan demee rek lay demee xalifa Oustaz Mor Kane la ñuy jox mu tijji jotaay bi ñaan bu daanee la ñu jox Oustaz Ndoye Diouf mu tëj xat mu fukki kaamil ak juróom yi ñu wàccee ci bis bi Oustaz Ndoye moo koy tëj comme niñ ko defee woon daaw bu ñu paree ñu jox Thierno Faye mu wax ci tur bi bu ñu paree ñu tabaarakallaahu kan bu gaaw lay doon rek damay bañ wax ji yàgg ci jotaay bi tey li ma fi bëgg mooy kase Babacar tey damaa bëgg ñu tàkku saa waaw xam naa xam naa xam naa liggéey passé dama bëgg tey da ngeen ñoo ameel bor daaw yi ak Babacar Diarra te it dama bëgg ñu fay ñu ko bu wax ji yàggul rek daje tabaarakallaahu bëgguma wax ji yàgg bu defee nga dugal ñi nga war a dugal ñu jox tabaarakallaahu oustaz ñëpp àndandoo la dal te wàññi coow mi alxuraan lañ doon jàng mat na ci jàmm ak salaam yaasin yi moom li jàng ci ay yaasin damay bañ bu ñu ko waxee ci jotaay bi ca dugg ci ko defee macha allahu taala mu gaaw. te kenn ku nekk mën na jël kàddu bi ci turu moroomam di nuyu di ziar Cherif di nuyu di ziar suñu oustaz Mbaye Seye Gueye waaye di nuyu di ziar suñu xarit suñu soppe di oustaz Ndoye Diouf di nuyu nag mbooleem ko fi teew di rafetlu jataay bi di ñaan yàlla lépp luñu ñu fi ñaan suñu borom nangu ko ci barke Seydou Ndiour sallallahu alayhi wa mu mel ni mag ñi jar ñaanal ndax bàyyi njaboot ñu am xel ak xalaat bu toll ni taxaw wàcce fi kaamil yu toll ni lii te c'est pas la première fois ngir yàlla ak dinu leen seen borom dañu ni sunu borom ku mu narta fay du la liggéeyloo lii dal na xel kon yàlla nañ ko jot muy yool bi waaye yëpp yàlla nañ ko muurloo te yàlla doon li leen a taxawu ci njaboot bi ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni kenn nag du fi gan ndax këru jullit moom ku fa dem te di jullit doo fa gan waaye dëkk nga fa te ñu jàpp ni képp ku fi teew tey ab jullit nga waaye it di ab tànnee fit ci jullit yi ndax xat na muy waxtu yi waaye boo bàyyee sa lépp ñëw ci lu mel nii wax dëgg yàlla wane na ni xam ngeen liñ leen woo kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp te kàddu yi nag moom mën naa bañ a gudd dañ doon ubbee loolu rek bi kàddu yu gërëm waaye di sant it waykat yi bala nuy sori ah sëñ Bay li nga wax rafet na foo ma fekk tudd ma jërëjëf yàlla boo ko ñàkkal ci barke Seydou Moussa foo nu fekk di nga nu tudd sagal nu te donte liñ la jàngal bariwul wante yow yaa toll noonu rek kon yàlla yokk xam-xam bi yal yàlla gën ko leeral yàlla yokk sa sutura daayiran wa baatinan yaa ngi nga àndal àndal ah jërë jëf sama yaay yéen ñoo leen war a jox jërë di yaay yu nangoo sonn nag ci diine sunu yaay yi waaye nangoo ñàkk seen alal ci diine nangoo joxe ak nangoo def seen taa ci diine kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di nuyu oustaz Fatou Mbaye di imam lii di soog a agsi noonu la nuy nuyoo sunu xarit sunu wala li baax xarit ay waay jërëjëf waay yaa ki ne yal na yàlla fay man naa joxe rajo bi ba dama leen a sonal ñun ñëpp ñu ànd muslu seytaan jàng faatixatul kitaab jàng ayatul kursi jàng alam nasar falaq ak naas ñaan yàlla sunu daje bañ a nekk suñu mujj gi day waaye ñu ñaan yàlla coow li ñuy dégg ci réew mi sunu borom teg ko ci suuf def ci ndox bu sedd ba ñu delluwaat mel nu dàq sax nañu meloon yàlla dëppale xol yi def ci ay jubóo di ñaan kaamil yii ñu jàng it suñu borom nangu ko sëriñ ci barke sama am ju baax ñu te te te jara wooteel woote ci rek ku la wuyu si dara wala tara kon nag yàlla lu ko yàlla fayal moom mi ko mën a fay jërëjëf kon ñu ànd def ñaan googu bu defee imaam dooy jàng xam ni وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من عماسة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بك جولي بك الإسلام بي جنا بنو سانتا يالا جولي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ñoo ngi di nuyu di leen siyaare di leen bal àq di ñaan yàlla sunu kàddu yàlla na fekk ñëpp di jàmm ñu ngi jiital jiital ci nuyoo bi imaamul akbar alxaaji tafsir abdourahman gay ñu ngi ñaan yàlla san borom yal yàlla dëgëral ko lépp lu nu jiite yal yàlla nangul ko te nangul no di ci teg imaam bay paate mbaay mi topp ci moom noo koy ziyaara baax di ko jox wàccuwaayam waaye di nuyu bu baax sunu xarit sunu sëriñ imaam Mor Talla mi nga xamante ni moo topp ci imaam bay paate ñu ngi ñaan yàlla sama borom yal na yàlla dëgëral leen te woyofaleel yan bi bi barakati sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu it imaam Mansour Kassé bu baax moom itamit ñu ngi ko jox wàccuwaayam di ñaan sama borom defal ko tawfiix defal leen ndimbalu saayir ak ndimbalu baatin bi xormati sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi nuyu bu baax sura faaw bi nga xamante ne moo fi teew teew fii di sëtu sayyidina Muhammad di sëriñ daam ñu ngi lay jox wàccuwaay bu baax di ñaan sa darajay maam yàlla na wàcc ci yow di nuyu bu baax sunu mag sunu xarit imaam Mbaye Seye Guèye mii toog nu ngi koy jox wàccuwaay bu baax a baax di ñaan yàlla sama borom yàlla na yàlla dafa leen jàmm fi teeg rek ñu ngi lay jox sa wàccuwaay sunu xarit sunu soppe oustaz Ndoye nit ku baax la nit la koo xamante ni wax dëgg yàlla kenn ku ne war ngaa fexe ba xaritoog moom kon Oustaz Ndoye ñu ngi lay jox sa wàccuwaay yeeg ci bu baax ñaan yàlla sama borom defal la tawfiix kàddu yi ni yëkkati nag. waaw dafa ndànk yow wax ci Ndoye da nga baax ah yow xool li nga wax ci Ndoye. dimbali ma dimbali tët tët ah, man kay yaay may dimbali. jërëjëf. waxatal Ndoye. ñëw ci moom yàlla ko yàlla doole teral. Eh, ñu ngi nii bu baax mbokk yi. di nuyu suñu wayjur yi toog bi suñu wayjur yi jigéen yi ak suma mag yi jigéen yi buñ ci tuddee soxna Ndey Ami Kase mii nga xamante ni jataay bi ñi sant Kase suma ma juumul naa ne moo ci mag mun nga ko jox wàccuwaay bu baax mu feggoog suñuy mag encore soxna ma fay Kase ak soxna Ayda Kase ñoom seen wayjuru jigéen ak sama jur du duñu woon ñaar kenn képp lañu moo tax may sa waxtu bis bi jotee bu jëlee carte di ma ko jox damay xam la tax mu di ko def ndax soxna Mbacke la woon ak sama yaay ñu ànd ànd bu rafet ba yàlla dogal soxna Mbacke jiitu ko àjjana waaye may sa mi koy rafetal ak njaboot kaddu gi ñu yëkkati nag kaddu waa dëkk bi la ak waa koñ bi yëpp ñu ngi ñaan ngeen may tuuti rek ngeen may ne tuuti rek soxna si. soxna si toogal tuuti nga may na tuuti rek ndax kàddu yi ñu yëkkati daa jóge ci waa koñ bi jëm ci ci Maysa ndax Maysa lii mu def dafa tuutiwul ndax ñun nii ñëpp kenn ku ci nekk sama wajur yaa ngi koy ñaaral waxtu wu nekk waaye at mii at mu ne sax dajale ay nit jàng lu mat ay fukki kaamil ak lu tegal jagleel ko mag ñi sosoon ci koñ bi loolu wax dëgg yàlla ci maysa la njëkkee kenn ku ko defaat it xam ni yaa yaa ngi koy royee ci maysa waaye maysa mooy ki ko njëkkee kon maysa na nga seere ni waa koñ yëpp ñu ngi lay sant waa koñ yëpp ñu ngi lay gërëm ñoo ngi ñaan yàlla sama borom mi am jàmm yal na la yàlla dolli jàmm yal na la yàlla dolli sutur defal la tawfiix man li tax ma gën leen a fonk mooy da ngeen bëggante te ay bokk suñu bëggante soppante yéenante jàmm lu ñu song dañ koy daal te yéen seen famille bi loolu da nekk ay bopp bu ñu dee tuddantey doom di mayantey jël di jëlantey soxna mbokk da day gën a dëgër waaye mbokk bu te ñett yooyu amul sa bopp moo kenn ku ne sa boobaa sa bopp dalaa ñoom waaye famille kase yeen kenn ku ci nekk yéene nga sa morom lu baax kenn ku ne boo sa ñoom sa morom moo leen njëkk am lu baax loolu lu jafe ci ab famille la kon mo ngi ñaan ci dara jooy sallallahu alayhi wasallam yàlla na leen do li jàmm defal leen tawfiq Pape Khalifa kasse ñi ngi lay sant yow nit ku baax nga nit nga ko xamanteni fuñ la fekk yaangi rafetal ndax li ci rafetal la bok ndax li may wax ni ku ko man nga ku ko xam nga waye rafetal kep mo tax nga ko def kon no nga ñaan yalla mi nga rafetal yal na rafetal sa mbir mepp bi barakati sayyidina Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. ñoo ngi sant bu baax suñu jigéenu bopp bi di suñu soxna di soxna aw seen nit ku baax la nit la koo xamante ni wax dëgg yàlla man day jàppal ni ku la fonk laa ndax dafa bëgg lu baax te nit su bëggee lu baax rek dafa jërë bëgg ndax li tax ma xam ni ku bëgg lu baax nga kase yéen gis naa ni lépp lu fi xew seen xel dina dem ci yow soo bëgg woon lu baax di leen yàqal loolu lu am waaye gis naa ni lépp lu xew ci kase yéen rek faw seen xel dem ci soxna Awa Sène kon ñu lay ñaan yàlla sans borom yàlla na la yàlla dolli jàmm defal la sutura li tax ma xam ni ba tey bokki marché bi ñoom ñëpp ñëw nañu loolu mooy wane ni soxna Awa Sène mii wax dëgg yàlla nit bu baax la ndax mboolem ku mu bokkal nekk marché li ci ëpp gis naa leen ndax maa ngi ñoom maa bokk nekk marché li ci ëpp bi ma geesoo gis naa leen loolu nag ànd ak ñoom nekk ak ñoom ci jàmm moo waral loolu kon yéen ñi bàyyi ko marché ñëw gunge ko ci bisam bi yéen ñëpp soxna Awa Seen ñu ngi leen ñaan yàlla yàlla leen yàlla defal jàmm yàlla leen yàlla defal sutura fi leen mu jël suñu kàddu nag mooy yàlla dafa dogal suñu soxna yi bopp yi nga xamante dañoo ne ci koñ bi di ñu guddi di ñu bëccëgal tax yàlla dogal kenn ku ci ne ci noonu soo génnee sam xel dal yàlla dafa dogal ñu dajaloo fas yéene wut tàkkusaanu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy bu ñu tabaskee incha allahu taala bam am ñeenti fan muy le deux boobu nag sunu imaam sunu xarit di kenn ci ñun di imaam Tafsir Abdourahmane Gaye moo leen ko jàppal wax leen ni kat incha allah bis boobu maa ngi yéen maa koy ànd ak ba mu jeex tàkk incha allahu taala sëriñ Mbaye Kassé mii mooy ki nga xamante ni. moo koy taxaw moom itam ba mu jeex tàkk incha allahu taala kon ñoo ngi koy yëgal mboolem ku fi nekk incha allah bu ñu tabaskee ba mu am ñetti fan ñun ñëpp nu bokk dajawaat fii sans borom dawal nu tawfiix defal ñu ndimbalu sayr ak ndimbalu baatin noo ngi sant ñëpp noo ngi gërëm ñëpp kàddu yi lu ci dëng na ngeen nu jéggal waaye waa koñ bi sant nañu may sax gërëm nañ ko ñaan nañ ko yàlla yàlla na yàlla defal paju aajo bi xormati sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wasalaamu aleykum wa rahmatullah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 وأدخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بحق القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وبكل حزب حسنة وبكل نصف نعمة وبكل ربع رفعة وبكل ثمن ثناء اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خلانا وبالدال دنوا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالذاء ظلفة وبالسين سناء وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء طهرا وبالظاء ظفرا وبالعين علما وبالغين غناء وبالفاء فلاحة وبالقاف قربة وبالكاف كفاية وباللام لطفة وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو وصلة وبالهاء هداية وباللام ألف لقاء وبالياء إصرة وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه وبركة ما تلوناه ونور ما تلوناه من كتابك العزيز بعد القبول والضعف هدية واصلة ورحمة متصلة منك إلى روح سيد الوجود وعلم الشهود سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله رسول الله وعلى جميع أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح آبائه وأمهاته وأزواجه وأولاده وذرياته أجمعين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشائخنا وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أجمعين عامة وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات اللهم أوصل ثواب ذلك إليهم واجعله نورا يسعى بين أيديهم اللهم اكرم به مقامهم ويسر به حسابهم وضاعف به ثوابهم واجعل الرحيق المخطوم شرابهم اللهم أنس وحدتهم وارحم غربتهم وتجاوز عنهم وعنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم اللهم نور قبورهم اللهم وسع قبورهم اللهم ارزقهم وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نعوذ بالله من خوف الأنام ومن رضا عن النفس هم الرزق يا الله وردني بالقضاء ربي مصبرني على بلائك يا رحمن يا الله موضعا الشكر ما أوليتني نعما جل ثناؤك يا رحمن يا الله جل ثناؤك يا رحمن يا الله جل ثناؤك يا رحمن يا الله لا أحصين ثناء عليك أنت كما رب على النفس قد أثنيت يا الله فاغفر لنا ولمن من بيننا نسب من جهة الطين أو في الدين يا الله فاغفر لنا ولمن من بيننا نصب من جهة الطين أو في الدين يا الله فاغفر لنا ولمن من بيننا نصب من جهة الطين أو في الدين يا الله صل على ساجد قبل الورى فعلى بسبعمائة عام ربي الله يغفر لأمته وارحم بأمته واصر لها وادبرنها ربي الله يا أولا يا آخرا يا ظاهرا نور بصائر عبدك المتضلل لا يبتلين الله جل جلاله ببلية الإعراض عن ذاك الولي أماتنا الله على دين نبي أماتنا الله على حب نبي أماتنا الله على دين نبي وحب شيخنا الإمام الطيب آمين آمين استجب دعاءنا ولا تخيب سيدي رجاءنا أرجو الأمان يوم لا أمان إلا لمن أمنه المولانا يا عالما بالألطاف نجنا مما نخاف يا عالما بالألطاف نجنا مما نخاف يا عالما بالألطاف نجنا مما نخاف يا سيدي ووالدي أنت المربى توصلت بالله وبالرسول وبأهل البيت وبك شيقي أحمد التجاني شريف الصالم رضي الله عنه اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت اللهم يا رب لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيت ولا مسافرا إلا رددت ولا عيبا إلا سترت ولا ميتا إلا رحمت ولا ميتا إلا رحمت ولا ميتا يا ربي إلا رحمت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 أنت السميع العليم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

di nuyit bu baax Mouhamadou Bamba Xaadim Rasul Guèye ak Tijaani borom jaabi moom dafa ñëw rek ni ma bu ma tudd ndax dugg naa ci délégation Awa Sène ndax seen nag ummi caam te moom waa Touba la ndax ñu ñooy ànd ca Touba di dem ca kër ga daan fa fekk sunu baay ba Alaaji Badara Sène loolu yi ñu écho ko ba ci kanam kon bu ko defee bëgg naa dañ lay jox kàddu gi rek nga dugal joxe teraanga Astou caw ji nga xam ne dafa bokk ci bis bi mu ànd ak ñi mu àndal ñëpp kaddu gi nag kaddu gu gàtt lay doon deux minute ñu dugal Awa Sène deux minutes daal di dugg ci programme bi bismillah bu ko defee bu bëgg naa dugalee lool rek ñu joxe teraangay Awa Sène ji dugg ci programme bi Babacar jara ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar ay joxe leetaram ci la ci yaram ci tegginam ci suturaam ci joxe cër moo tax ma ne tekk ba ñépp dal ma soog ko wax astu sama yaay la sama yaay astu sëy la tudd moom mu tudd astu toujours dama nga wax sama yaay taman te man dama bëggoon sama yaay fonk sama yaay wóolu sama yaay kon fonk naa ko wóolu naa ko xam naa moom mooy kan moo tax ma ne ni astu yow loo nekk dañ ci nekk yow loo taxaw ma taxaw seeg yow loo war a joxe ñun ñoo koy joxe kon yéen kenn moo leen a fay yàlla moo leen fay mu dellu nag may sa aw nee na mu ngi lay sant mu ngi lay gërëm mu ngi lay ñaanal yàlla parce que bis bu mel nii ak nii mu taaroo ak kilifa yi toog yëpp seetoo dara xooloo dara nga ne awa coow laa tudde lii nee na moom tuutiwul loolu lu rëy la nee mu ngi lay ñaanal yàlla loo dugg yàlla na si yàlla defal ndam may sa nee na baax nga gore nga yaatal nga te ku aye nga ñëw teew defal ko ba mu rafet te dara ñaaw nee na nag bu amoon addina ak li ci biiram dina ko indi fii teg ànd kook ay mbokkam ak yaayam ak i magam ak i dëkkandoom ñoo tegal la ko fii ba ñépp xam ni tur wi lii mu ko tuddee rëy na neex na lool lool lool lool lool may ay waay yaa baax astu nee na yaa baax nee na na ko téye lii xeeb na ko wante li nekk ci biir du ko wax parce que bu ko waxee day mel ni day damu téyel ndax boo demee coono boo fa am yaa ko teg sa bopp dan doon dem ma katasa nano yonent bi awa seen ñëw na dañuy gàttal kàddu gi mais sa boo nuyoolee ba pare déggal li may wax nga àggali sam nuyoo ndax damaa bëgg rek mu doon mu dem ma ma ma cas cap kàddu gi cëppeel ko Awa Seen moo indi teraangaam comme ni ko Astou Thiaw defee ak ñi nga ko tudde ñépp waaye nag jamono mooy toll foo xam ni yóbbante galgal ulu ubul lam waaye Awa mii bu ko may sa jëlee biir bi bis bi tudde ko ko ñun waa kase yéen la ci maysa sa wuutu ndax ñoo ko xamul nun koy def ndax koo xamul noom noo koy def nam la def a tax ndax nee naa ko moom mii di Awa tey jii mën naa ni jéeg jëpp ngi nii ci ginnaaw moom nag concours la kenn njëkkantewul ak kenn waaye kenn defu ko morom ndax na tirage boo xam dañ koo tiire ni la diw ngay bëreel ñu ñu tiire ko nga xam xam nga ni boo demee ci arène ba jaru ngay te ndax bu yaay dem kaaw ma seddal na ko ci awa seen kon awa su ko defee maa la awa seen yëkkati waxal bëgg naa waxal bu ko defee awa seen yëkkati teranga nga xam ni bëgg baal ma dencal ko fii bëgg baal ma dencal a ah, cëm awa day kon su ko defee awa seen yëkkati teranga gi ni nañ ko yëkkati teg ko ci sa loxo ndax nag bis bu mel nii am na ci loo xam ne bu awa seen àndeek magam waaye mën naa ni soppeem mën naa ni taawu baayam man naa ni ndayam muy ummi caam mu bàyyi yëppam jugee ba dakaar ànd koog waa marché yi yëpp nag kenn desul dama ni ànd koog jéegi kër gi kenn desul ànd koog xale yi kër gi kenn desul ba ci man mii desuma ma oto soog moom bokk ci weexi ni ko xaadim defee man ko sa délégation la bokk xaadim yaa ko wax yaa ma ne délégation awalan bokk kon awa seen sa délégation ñu ngi yëkkati teraanga gi di ko teg sa loxo di am nag yeneen yoo xam da koo def surprise muy yee awaseen yëkkati ko par benn di ma jox mboolem koo xam ne moom nga bëgg a décorer ndax nee na surprise la koy def moom dama ni jëlu butigam bee rek taxaw ci fasko ci xefam eh, eh, eh, dama ni sar ëpp baaxul jox nan may sa ta sabata woo ñu jox la ngay sabata مثل الله صلح وجهكم ثبت ثبت أقربنا لم يرد مثل الله قدسه لا يريد

I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm Alaaji Babacar Diop ñu ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay Diop ñu ngi lay nuyu bu baax bii nag awa seen ni nañ ko yëkkati joxal ko koo xam ni dama ni damay ragal sax mu bëgg mu bëgg a tuxu Cees waaye dina ko xaw a bii may sax awa seen nee na moo la ko jàppalee ci sa bis bi joxal ko ko Serigne Babacar Dia Para xaritam la soppeem la soppe ñépp te yaakaar naa ni dama ni bëgg ñépp yombul waaye ñépp bëgg la moo jafe waaye am na ci ñoo xam yàlla moo leen dogal ci ñoom boo leen rombee sax boo leen bëggul sax seen jëmm day tax nga mën leen a bëgg ndax seen jukko ak seen woyas waaye waaye rawatina nag boo tuddee bëgg naa bii mu ngi koy jox bëgg naa juub وصف مسلسل عبد الرحمن ليس ما ترجينا وتربا يوم تكرزتك إغاجينا وحسد يا ديكوبا يا أبو koy séddale naka séddu bu la booj bu ah, ah. ni yaa ah, bii nag cuub ngeen kan lañ koy jox dama ni miraasu bàyyi jaamur boo tey ngër ngëni ba am caw nag bu sa bàyyi dee di nga bii dama koy yëkkati rek ni jaxeen mbay kay nangul ma ko mu de wooku ma mu de ma ca bànjul sa kenn de jay njaay mbay gàtt làmbañ gàttu tànk néew waxta du yàqu guddi rëyu jëf kii man lañ ko jox man xalifa Ababacar jaxeer kay ma jox la ko yow lu ma waay di jox bañ bëgg yéenewu la bu yeboo bañ ma koo jox yow lu ma jokk yow laa koy jottali dama ni kii laa koy jox mu dem jox ko Adja Aïda Nyep gërëm naa ñëpp Fatou Faye contane na xol bu sedd rek doy na ñaan mbolem ko xamé ni rek tudd na la bis bi ñëpp contane na ci ñoom ñoom ñépp yàlla yàlla fay leen damay bañ a lim rek ndax guddi na guddik jàmm daaw maa ngi nuyu sama waa fondation internationale soppay Seydina Cheikh Ahmada Tidiane Chérif président baa ngi nii toog di oustaz Ablaye Fall ànd ak madame la présidente Adja Walimata Soumaré ngeen toog maa ngi ñaanal sama waa famille mboolem ku sant kase Adja Ndeye amee ngi nii toog yóbbaale ñépp imam suur moo daan toog fii waaye ku ne xam ne ni liggéey jaamu yàlla la ci suba la dem man ko yaa ngi fi ndax alaajee ngi nii toog kon yàlla yàlla fay sant naa ñëpp kii toog di sama papa di alxaaji Lamine Sarr di kilifa jóge ba kër coon Sarr doon borom dëkk ba ànd ak soxnaam suñu yaay aram mbeng Adja moo sol borode bi zone bii fas yéenee dem baytalaayil xaraam incha allahu taala nga dem ci jàmm papay Moussa moo toog nii papa Lamine jërëjëf kontaan nañ yal na yàlla fay leen wallahi li ma bëggoon bi li ma bindoon yëpp pour wax ko waxtu wi dafa dafa waaxu lool te man ku ne xam ne ni sama wax bariwul ñépp bàkke nañ ma ko nag sama wax dafa néew lool barakatuhu ndax Serigne Mbaye gis naa ni ma jongoroo ak ma Ahmada Tijaani bax bax aaliya kooku nag mooy akmalul aqtaab xatmul Ahmada Tijaani bax bax bax bax raadiya kon jërëjëf góor gaa ngi noonu dama doon def synthèse rek ci góor gi dafa am rek benn baat bu ma leen di ñaan yéen ñëpp ngeen may ma ko ma wax leen ko may sa nag moom waxtaanal ko neexul ndax li tax neexul mooy danaan la sëñ mbay na la woyal xaside bii nga firil ma xasida bii moom dalay sant la koy war waxtaan lam bëgg mais ginnaaw bi ñu nuyoo mbooloo ñu fi teew yëpp borom xam-xam yi ma fi seen imaam ñoo ngi lay nuyu bu baax di suñu sëriñ di boroomi xam-xam di boromi cër ndax ku jàngal sëriñ Babacar Kassé tabarkaal kon imaam ñoo ngi lay nuyu bu baax di la ziar di nuyu sama gaay sa ñoom sëñ xaadim ñoo ngi leen nuyu bu baax eh, sama waa ji moom mampaate maa koy ziar moom gën nañ ko gis di suñu soppe sëñ Adama Thioune di nuy soxna Xawa seen teraanga ji bare na yal na yàlla saxal teraanga sa loxo di nuy bu baax nag suñu baay Imam Sarr muy kenn ci ñun daaw la jóge màkk ren soxna see dem màkk yal na yàlla mottali di nuy soxna Faat Fay bi nga xam ne ñoo ànd bi ñuy ñëw di nuy bu baax nag sama xaritu bopp di sëtu Maba Jaxu Ba yàlla dogal na daaw ci saan bi la ñu xamante may sa boole ñoog moom muy aji bi ma ñëwee daanaka këram laa dal ak yaayam ju baax ji soxna ami kase ñoom it ñoo ngi koy nuyu bu baax moom turam moo dàq ci jataay bi abinata Kase ñoo ngi koy nuyu bu baax di ko ziar oustaz balaa may dugg ci waxtaan wi rek dafa am benn lu may leeral tuuti rek di nuyu nag bëgg naa bu sëriñ Babacar Sy Abdoul Aziz ndax moom ku ko teral rek teg nga ko ci loxo sëriñ Babacar Sy Abdoul Aziz yóbbaale ko jigéen ñi baal leen ma rek ngeen déglu ma sëñ Babacar kase dañu ni jigéen suñ ko fasee foog mu toog 3 mois am na lu ci wér nag mais am na lu ci wérul dafa am jërëjëf mais mam marem parfum yu neex la ñu jox sànq dafa am ñaari jigéen yoo xam ni dañuy xaar trois mois mais am benn jigéen boo xam ni moom du xaar trois mois dafa am jigéen joo xam ni su tolluwul ci gis règle suñ ko fasee day toog ñetti weer janvier février mars wala février mars avril moom daal na mat ñetti weer wala jigéen joo xam ni dafa gis règle ba gisatul règle indispose euh, kii ménopause kooku suñ ko fasee day toog ñetti weer mais jigéen ju toll ci gis règle foofu nag moo jar a leeral jigéen ju toll ci gis règle moom waxuñu ñetti weer mais dañu wax ni salaasata xuru ñetti weex-weex déglu leen nag foofu ñetti weex-weex yi mën na nekk un mois seul nga set wuti jëkkër sëy Man na nek 10 ans. Est-ce que vous ngi may dégg? Gis nga so gisé règle le premier, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8 mu dag. Nga sangu julli ci. Ñu dox ci digënté bi 8 jours nga gisar règle. Da ngay jappat sa idda. Su sété ci digënté bi nga sangu julli ci. su su su dépassé waatee huit jours soo soo gisaatee règle sa ñetti weex-weex mat na mais léeg-léeg dafa am jigéen ñoo xam dañooy am retardu règle mën nañ toog quatre mois duñu gis règle am na ci ay jigéen mën nañ toog quatre mois mën nañ toog cinq mois mën nañ toog sax 10 mois ti du ñu gis régal ñooñu nag feeg gisuñu régal ba mu set ñu gisaa régal ba mu set ñu gisaa régal ba mu set amuñu droit am jëkkër. moo tax bari na góor ñu takk ay jabru jaamu am na beneen am na beneen Serigne Mbaye xam nga ak ban mooy góor gu takk jigéen juy nàmpal soo takkee jigéen juy nàmpal ci kaw nàmpal bi jigéen ji di gis mbërëg di gis deret su gisee ñetti yoon mbërëg ba mu set mën nga ko takk mais suy nàmpal te du gis deret doo ko takk foog mu nàmpal ba feral wal waalidaatu yurdi'na xawlayni kaamilayni liman araada an yutima radaa yéen may dégg am na beneen nag foofu lay daanelee dugg ci boroom guddi gi mooy ku fekk jigéen mu am doom di nàmpal nga ñëw takk ko mu indaale doom bu jigéen bu muy nàmpal ngay ànd ak yaayam ba xale ba màgg yaa ngi ànd ak yaayam mi ngi nàmp soo amee doom bu góor bu ne ci biir kër gi dem ba xale bu jigéen bi màgg nga ne jikkoom neex na ma dama koy may sama doom ju góor sëy boobu wérul xaw ma ndax yéen a ngi dégg li may waxam déet su fekkee nag bi mu indaale xale bi xale bi dafa fer nàmpul xale bi dem ba màgg nag mën nga ko may sa doom jooju mais ci kaw su fekkee ne nag foofu tamit am na exception su fekkee ne xale bi toll na ci nàmp mais doo ko nàmpalee sa ween mais bi biberon nga koy nàmpale su boobaat sa doom dina ko mën a jël waaw ndax nàmpul ci soow mi dégg ngeen ñetti yooyu dañuy bëgg nag kenn ku ne léeg-léeg sooy dem ngay am looy yóbbaale ndax li xew tey ci sëy yi kenn xamul nu mel kenn xamatul lu xew am na ci nag keneen koo xam ni moom araba cun danaan jabar ji fase naa la adama kii su demee ba itte bi war a mat mu dem jëliwaat ko tee ko ci kër gi ba idda ba mat ba ba ba mu jël ko xam nga xam nga tey soo fasee rek mooy idda ba mat na foofu am na sew-sew bu fa am léeg-léeg da ngay gis ko fase jabaram ñetti ñaata at fukki at xëy suba rek ñu mural ko ko indil ko ko ne da ko fay la ji de dang koy takkat de jigen soko fasé ba idam mat ya kenen yena ca bokkayam da ngay ciana tak est ce que yéen ngi deg wax ji kon suma defé dañuy bëgg bu baax baax nit lepp loy def nga xam ko mom la borom téré bi wax ni jaadul ci mukallaf muy jëf benn jëf lu xamna lan moy àtte ci jëf ja tallah dari ya am ma tallah dari la yaf'ala filan hatta ya'lama hukm allah fihi nit du jëf lu la day jëf nga xam lan lañ la ca islam dik ak lan la la ca tere waaye laysa alfarqu bayna insaani wal xayawaani duuna maa irfaani soo demee ca borom xantaratul murid bu Cheikh Sidaaj Malik nee na dara teqalewul nit ak bàyyi ma lu dul xam ba pare xàmmee ndax wa raxsu maalil fata aqlun wa maarifatun wa in huma fuqidaa xaqan faqad baada ñu ngi ñaan ci darajay sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam borom takusan biñu prolonger ak jamu biti ci ban mak nga may yobbo ban téeréem ñu xol lañ ca man ñu rëppate ko té ku ne dem nga ne lan aha sopp sayyiduna muhammadu maa ngi ñaan kenn ku ne ki nga dendal akolat ko di yel nañu fekki deewon waye nak goor na akolat goor jigen na akolat jigen. jëkkër ak jabar nak mën nañu akolatante لربي منشرا حمدا لربي منشئي حمدا لربي منشئي حمدا حمدا حمدا لربي حمدا يوافي حمدا يكافي حمدا مزيدي حمدا سبب حمدا حمدا حمدا لربي علينا الحمد حمدا قرحينا حمدا حمدا لربي الله يعلم الله إننا ما نحسن تيار لم يخمني موسوس للاسوس من نوره تيار يرنت بيا خمني مو فين اللي بلو فين نور الهدل إيه إننا ما يلير جبكي ما يلير جو سلاجي الله الله الرحمن إننا سوي بيفني يوم doomu Fatima bi badru rijaali zuwi jaali sayyiduna Muhammadu Muhammadu est-ce que bi lam yonne mooni oh. bay jama foore yàlla na ñaale ko la weeru nay koore yonent bi moo maanu ah. yonent bi moo taaru ah. yonent bi moo sax yàlla badru rijaali zuwija badru rijaali gis nga pour nga xam dimension Mawlaay Cheikh Seydi El Hadji Malick waaw waaw da xool ponkal yi Alaaji Malick defar te ñuy ñaan yàlla nekk taalibeem xoolal Alaaji Ablaye Sow badru rijaali إن كنت تعجب إن كنت تعجب فعجب الوزير الذي بالفضل الله آه. في الأجمال والبحر والأنهار في جنباته آه. الزمان من كان في جنبي البحر وكل رجال الزوجة يقول ويل قول تكنكو أعلى النساء أمر رجال قلت جيجين جي الله ستلال بابا ci la ko yàlla amee doom joo gën ci àdduna ak alaxira wa marhaba ahlan lahu wa marhaba xayru bisaa'il arabi nee na mooy ci gën ci jigéenu arab mooy aminatu ummul nabi nee na mooy amina li nga xam ne mooy yaay rasulullahi المنفقين أعلموا نينا بونكل وافيلين خمال نانيو بدرها وبينوا تي ورس وي nga xamne indil nañu ko dinañ ko leral nuzula fastaftaru neena leram yi indil nañu ko pare ubbil ñu ahlan wa marhaba ahlan lahu wa marhaba wuhush bidin rakhasat neena lépp loo xam ne njaay àll nga te nekk ci àll bi keroog kontaan nga. min hamlihi ñoom ñëpp kontaan nañu keroog bi yonent bi Amina ëmbee ko. nee nañ ku ci amoon njàqare keroog ca la dañ. ahlan wa marhaban. yaa sayyidi. yaa marhaban. aywa yow sama sang yow sama sang. Ibrahima. كل النجبا نانا يا نجو كيب كو يالا جيتال والقيام مو خم دا يونت دا والنقبا مو خم نقبا ودا اهلا مرحبا اهلا له ومرحبا ونور عمر ورا ونوره عمر ورا فك سيدنا محمد من يبني مين مقل يبتي الله محمد ينتبه ونور عمر ورا الهلال يا نور الله matale la به الصلاة dégg ma la xullam nee na dañuy toog di ma yedd te suñu xamoon li ma xam duñ ma yedd. ak taxawaay bi man maa yi. nee na fay naa samay mbëru bët man Alaaji Mansour. bi la suur di la mbooloo sa ji. ci la mën koo xam ne day jotteeku ma koy jooy ngir bëgg Rasulullah yi. Alaaji Muhammadul Mansour si Maalik nee na. nit ñëpp di nii yéen ci biir lu gën. ah kay saxtu aaya ummi. nee na kiwal laa doon tudd di ko dundal ak jigéen. nasaxtu nasaxaat. أجمل من محمد أجمل من يننت بي يننت بي يننت بي يا تختو جيبو كتيك الله سخل غنجح آه. سخل غنجح كني آه. وي مصطفى آه. وي وي وي كنت ويوم كني كل يوم نجف سيدا كل يا أغلى كل كي أحكي akmalu minka lam tarxatu aynuhu wa akmalu minka lam talid nisaa xuliqa mubarri'an min kulli aybin ka annaka qad xuliqta kamaa tashaa muhammadun saman kutumin muhammadun ajmalu man fi lkawni xalqan wajhan أدعج العينين أكحرق الأسفل قطين عرق الوجه كالتوي you that Yeah.

xadri ngir donte leen gërëm la fa innahu kaman xadar nee na da nga mel ni ku teewee yow ma xunayni wa sabar bisu xunay day bisu sabar yow ma badrin yow ma nasar da nga mel ni ku teewee bisu badar xayral wara ma faxami nee na keroog yow al xiyaam yonente bi moo lay tiitaroo bamba nee na ahmaduna rahmatuna حامدنا نعمتنا فلا تصف شرح خير فرحتنا bi tàmbali waat ko sëriñ Bamba nee na ahmaduna ahmaduna rahmatuna rahmatuna nahmatuna nihmatuna hamiduna hamiduna mahmuduna mahmuduna farhatuna farhatuna wal juhud muslim biyadi muhammadun maljauna wa umdatuna qudwatuna يا ما الجزاء زخرنا بها العباد فرحة الحاج عبد العزيز غفير ما يغفر محمد قدوتنا يوم الجزاء ذكرنا للعبادة فرحة بسرين تبادر أحمدنا وزن محمد رحمتنا وزن يرمني حميدنا ومن الصدق نعمتنا وزن خول محمودنا وانجيا فرحتنا وزن مدي وجود والمريدين مين الدبوغي وانت بينا فمين تو الحاج عبد العزيز مالي مغفر بايا فين محمد jaw na bàyyi sëriñ Modou si ne Mouhamad daal mooy suñu wéeruwaay umdatuna mooy suñu wéeru xutbatuna mooy suñu njiit yow man nga daa yow bis bi yàlla fay suxruna mooy suñu ndaxee jëge fi hi ibada farxani su demee ba jaay ñun jaaxle mooy taxaw ajab naa li si maalik leen lu ala jab wax akrim bi jaral leen sang bi nga xam ni ci sang bi nga xam ni moo daan yanu ak baraaya loolu mu ne fii mooy waalidal batuuli fatima alhaji abdoulaye si malik si katta yàlla man daagul doom bi yaay sa biir tur tuuba ci waawan mbooloo ndax la ngay xalib ala sax yàlla nga bi si malik ahakay bi nga mel ma tuli ku man ma noppi dootu ji ku wàcc ñay xew na gir lii wa mbasa ayab ku ne القوم خادم لقد غاب عنا سيد القوم خادم سيد منصور ضرب دار يسكر البنين لقد غاب عنا سيد القوم خادم بالعلم والتعليم فوقدم خيركم والبذل والإنفاق والإحسان أكرم بكم منصور يا سعد الورى لقد غاب على سيد القوم العالم محمد المنصور سمر النار لقد غاب عنا سيد القوم خادم ma ngay feeñal réew mi. raxiilul ammi adlaana. nee na loo ci xamul mooy man Alaaji Abdou man sëñ Mansour gërëm naa gërëm te goo xam ne kenn mënu ma cee génn. Cheikh Al Hadj Abdoulaye Jimaali man lil muriidi. ah. aywa mooy sëñ Mansour a xam baayam. billaay sama waay mën a waay. kenn du sama waay. borom prise bi. borom saamaam ne. firi dafa am benn góor bu ñëw fekk sëñ Mansour toog ni ko ni ko sëñ Mansour rek am ku ni ko noppil mu ne ko barke Cheikhul Khadim ni ko barke Cheikhul Khadim <laughs> waa ji ne ko noppil sëñ Mansour ni ko xanaa déggoo ki wax sama maam la wax Cheikhul Khadim la wax déglu ko. Eh. waaye li ko sëñ Mansour dañoo nangu samay nag ki nangu këj kenn mënul ci moom dara te nee nañu ma su ma demee di ko jëli dina ma rey te du fen fen ba banaloo moo nangu ay nagam sëñ Mansour di ko jàllatin sëñ Mansour jàll si wax ko li mu ko wax ni ko nii soo demee ne ko jàkk loxo téye ko ni ko samay nag laa soxla yam fa waa ji ni ko sëñ Mansour bara laa wax de bara grand loo grand loo laa wax de mu ne ko demal waa ji nee na bi ma ligsee ci bunt këram ni góor góor gi laay seet si bi ngi toog ci benn pilian nee na bi ñu leen ko dugg si lu ma juróomi bunt benn bu ne dañ koy ubbi mu ñëw benn bu ne dañ koy ubbi mu ñëw bu mu ñëw mu ñëw ba jàkkaarloo ni ko jàpp loxo ni ko yow laay waxal samay nag laa soxla mu ne ko yow nag yi ñaata la mu ne ko téeméeri nag la jox ma samay nag mu ne ko xàmmee nga say nag mu ne ko xàmmee naa samay nag mu ne ko nañ dem mu tijj fi teg baat sëñ Mansour la gis nga bi mu tijjee mu naan ko bii maa ko moom bii maa ko moom bii maa ko moom bii maa moom bii maa ko ba mu des ñaar mu ne ñaar yi gisuma ko mu ne ko benn bi jaay naa ko mu ne ko lu muy toll mu ne ko 300000 mu yëkkati 300000 jox ko mu ne ko benn bi nag lekk naa ko waa ji ñëw fekk sëñ Mansour ni ko juróom-ñeent fukki nag yi ak juróom-ñett jot naa ci bu juróom-ñeenteel bi jot naa njëgli mais nee na benn bi lekk na ko mu ne benn karaw su ko ci lekkee at mi du ko fekk at moomu weer lañ ci teg waa ji dem barzaq nga ne abwaabuhu sëriñ Mansour xam nga xam nga di waxtaane sa waaye dafa neexoon borom daara ji cee sama la kooku Souleymane kooku Souleymane Amrine la kooku Moussa Yun bi nañ dëtin la kooku xalilu diini la kooku sunni bi muhammadin la si bu sambaat alasaan ah ah kooku buur la wàlliyu la am waabu mu ni at ne la ko ah jalibin adaban aw balibin durara dafa am benn waay ju mos a ñëw ci sëñ Mansour sa waay ni ko sëñ Mansour xanaa li nga leb ci banque bi na de mu ni ko demal xool ndax di nga fekk sama mu ni ko demal xool ndax di nga fekk sama tur mu ne ko taalib yi jox xanaa lañ lay jox ci addiya bare na de sëñ Mansour ni ko bi ma xëy ba léegi maa ngi joxe mu ne ko xanaa li ne sa poos di jeex mu ne ko ki mu yow sëñ Babacar moo fi ne eh. maa nga sëñ Babacar moo ne sama poos féeg maa ngi joxe day dem te du jeex sëñ Mansour mu ne si mu sàmbaat ñatal saan mi màngoo ma yëgal buur la wàlli ab baabu fu am nag bu tukkal nag bu lekk ba suur ba commencé di mbëkki sëñ Mansour jóge Tiwaawan ni ñun ñëpp fekk leen ma mboor moom yooyu la daan def ñëpp jóg fekki ko mboor gis nga gardien yi sëñ Mansour àndaloon am na ci policier am na ci keneen koo xam ne moom suñu fukk kenn la ca bi nag bi déparé song ci sëñ Mansour ñoom au lieu ñu dem songi nag bi lam leen jaral ñu jël billaay bokkul ak suñu mbokk yi su doon ñoom awseen dañuy dem baral mais ñun ñëpp dañoo daw bi nag bi dawee ba yëg ci si sëñ Mansour sëñ Mansour kurus la ko wéccax bi nag bi fray ne la def sëñ Mansour ni su ngeen ci yéexee mu nekk médd rendi leen ab waa bu fute xat sëñ Mansour sëñ Mor Sine nga tëju kaset bi kaset kaset li Mansour Mansour ma waa ji dañ koo takk xale 10 ans waa ji 10 lañ ko takk xale xam nga sëñ Mansour sëñ Mansour dafa neex waa ji ñëw bëgg yegg ci marabu rek mënul yegg mu ni nag fii lay taxaw ñu ko sëñ Mansour ñu naan ko déglu mu naan ko sëñ Mansour ba ñëpp xool mu ne ko dañ maa takk xale 10 ngi nii Ah, rek sëñ Mansour ni ko jéggil te ñëw waa ji nga gis ni muy jéggee nit ñi di ñëw sëñ Mansour kenn ci xale yi mu ne ko duggal ci biir indil ma foofu benn butéel mu jox ko butéel jël waa ji tey ci bopp bi ni ko demal loo gis soo xëyee ñëw wax ma waa ji dem bi mu demee ba bët set waa ji yàkkamti na xam nga ñi miin kër sëñ Mansour suñu mosaan a xëy ba jógee ci jàkk ji ci saal bi kaamel la fay toog di fa jàng waa ji ñoo naan sëñ bi génnagul ñu ne ko seen bi génnagul léegi waa ji ne kon maa ngi lijjante ji te ñëw waa ji dem ay une heure et demie mara bu génn boobu mi fi ñu ko def tey boobu mi ci kaas bi bi waa ji yegsee mënul dugg mënul dugg ni ko góor gi démb sëñ Mansour laa ko mais tey góor gi tout est bien tout est bien sëñ ni ko kaay kaay yéen ñi beewul te toog fii ku ci ngelawam laal tey ngay bien moo tax daan na wax ni ñett yi ñett yi maa ci man ku dul man ñu ne ko ban ak ban mu ne ku ñu takk xale léegi léegi ma dindi ko léegi léegi nga ndékk ndóol ba ñépp xàmme la ma def la milliardaire léegi léegi bi ci des nga am feebaru xel ba kenn mënu laa faj mën suñ ma faj la léegi léegi. Serigne Mansour. tey ñëpp ni nii. ah magal Serigne Mansour. ah ay Ahmadal Mansour yi. yi commencé Mansour la daa yi شهور نجلا خليفتي nee na dama génn sama sama kër dem di seeti sama turandoo nee na bi ma ñëwee di seet sama turandoo maa ngi fekk sama turandoo di jàngale daaliya ñoom oustaz xam nañ ko borom arij bi mun arijil xidaa bi wuradi bayna lisaabi wa bayna zaatil أجز على الجزع الذي بحديده أجداس أجداس العسير همدي خف المطايا على الديار أحبة نرب waaw waaw waaw murid bi daan na mu ngi yàlla dogal nee na bi ma yegsee rek alaaj Mansour ni ko turandoo yeggaleel nga jàngale nee na sëñ Mansour commencé ni ko foo foo teg innal manuuna hiya sabilu neena jangale bamu jeex muniko ni lan mo la fi indi won, neena mu wax ko soxlam neena alad mansur alad mansur jël ni fa ya ahmad al Mansur, e yow sëñ mansur so sansee ñepp ni yow la so waxe ñepp ni yow la so ñaanee ñepp ni yow la so guinness president ñu bay president te soo génnee leneen lu génn lu dul yow lépp bàyyi loolu topp la yow sëñ Mansour ñu ni ko ban Mansour ngay wax xanaa man mii mu ne déedéet nag nag laal xalifa ki nga xam ne mooy bàyyi booy doomi sëriñ kër si boroom fajut aajo gaaw na ci mbay tiis bu dàqu gaaw na ci mbay laaj ko gaa ya daan dëkk aajo gaaw na ko mbay faju aajo warew mi faju aajo gaaw na fa may gis mu daaku gaaw na fa may laaj ko gaaya daan di nga may fii ci biir te waawanoo cuy ku mar dama ne borom fas bu njëkk bi eh, eh. borom bët yu yi waaw borom xam-xam bu leer bi borom faydu tiijaani Cheikh Ibrahima Niass mooy wax ne yow yàlla maa ngi wuutu ci mbindeef yi mboolem xeetu salaatu yi nga defal ma ko sama soppe bi muy rasulillah yi bàyyi nee na wa aleykum min kulli xalqin salaam ahan kay فخرت الولاية طول الليالي وألف ضعف ضعف الخلق ربي من الصلوات في بر المعين ضعف خلق الولاية طول الليالي نيل كيرو دوندين ديرو جامونو maa يو يالا yow في ni mbindee fi toll nga multiplier ko na mu toll nga multiplier waat ko def ko salaatu wa salaam jox ko rasulillah. bàyyi na fa kay falaa. pourquoi pas. bàyyi ñas fa kay lu tax loolu mënta ne. wa kay falaa wa kay falaa. ah bàyyi nee na yonent bi fa wal aslu li kulli jamaale. yëgoo ni lépp luy taar bàyyi nee na yonent bi mooy cosaan la.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 waral lii waxal ci kaw ci kaw waaw waral lii cheikh al islam waaw waral lii waaw allah allah aw leen aw leen aw leen الله الله لا إله إلا الله الله الله لا rafet faas wax leen ku rafet faas Babacar Diarra bay moo rafet faas wax leen Allah Allah الله الله لا اله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله وخلين كوار اللي شيخ الإسلام شيخ الإسلام ورا اللي شيخ الإسلام الله الله لا إله إلا الله وحلم كور لي شيخ الإسلام شيخ الإسلام شيخ الإسلام ور شيخ الإسلام لا وكيف لا kay fala mu mel ni ñetti bay rekk moo ma dese te balaa ma koy wax may sa kase moo ma ko ñaan ci laam yëpp Cheikh Seydi El Hadji imam Ndoye ndax askan soo ci teralee kenn teral nga ñépp te gis nañ ni nga def xaaj ni sa kese nii ba ci sa conférence bi noonu laa amee woon yéene teew ci ndax dama ne ko woon bul ko wax dara surprise laa koy def far ngànt am mais lu jéegul jiwgal xaw luñ koy waxee jógu fa lu jiwa jeexu jeexu jógu fa incha di ko ñaanal yàlla bu baax damay faral di wax nii jataay boo dem ki fa gën man am naa fitu wax ko te moom ci ñi gën ci jataay bi la bokk ndax ku jàng alxuraan maa la koy seedeel. dëgg la. Ndoye Diouf nga wax de. Ndoye Diouf laa wax. Ndoye. Ndoye. Ndoye Diouf. Ndoye Diouf. mu mel ni muy boromi xam-xam xam nga léeg-léeg da ngay dégg ku ni. ki gën ci yéen mooy ku jàng alxuraan te di ko jàngale yonent bi waxul loolu de yonent bi waxul ne xayrukum man xara alxuraan wa qara'ahu waxul loolu de ku ko xam la wax ku ko xam nit di nga jàng te doo xam mais ki ko xam ba pare di ko xam la ñu wax moom mu bokk ci ñooñu waaw moom bi mu defee iftitaaxam rek ngay xam ne yaa say daal tabarkàlla sama yaay la nag Amina la tudd Aminata naqiyat an saa iri tuhami kon imam Ndoye maa ngi lay seedeel ni Maysa Kassé mi ku la sopp la te daf koy wax lu bëree bëri may dégg te yonent bi dafa ne woon nit soo ko soppee na nga jàkkaarloog moom ni ko sopp naa la su ko mënta wax mu yóbbante ko mais Maysa mi ku la sopp la bi ci des mooy aji mbaar Cheikh Seydi Hadji da daan wax ne fu ngeen fekk ku sant ba na ko màggal ndax màbba jaxu moom muy nit ku baax depuis di ko jéggulu nag ndax ñaanu pàppaam bokk naa ci ñi ko jàppaloo ni ko dinaa ñëw Cees mais ngànt téema ma demoon côté Ndar mais dama woo may sa mii ni ko demal rek lu ma ci war a def nga def ko fa ndax foo ne maa fa ne bi mu fa jógee woo na ma ni ma wool aji maar ma ni ko déedéet duma ko woo naa bàyyi ba dem Thiès ba jàkkaarloog moom jox ko sama ngànt man bi may ñëw sax di dugg biir këram tey dama doon yot ndax dama yaakaaroon ni sama ñëwee danaan ma oustaz mais teraanga junne mu defal ñu ko ca kër gi kon dañ koy sant di ko gërëm ak yaayam ndax yaay moom dañoo ñëw fekk xeetu parfum bu ne mu génnee ko jox ma may sa nag moom lenn rek laay wax ci moom mooy nopp na jabaram ragal na ko kon loolu su yegsee balaa muy def dara danaan xaaral ma woo première dame ma ne ko soo naan première dame day fekk deuxième dame ne fa neel bàyyil ma woo dame rek mais moom it mu jàppale may sa loolu di xale lu may sa bëgg bëgg nako ko lu may sa bëggul bëgg ko ndax kenn ku ne xamni ñun nekk ak ñun dafa dafa metti ndax yalla da dogal mën nañu sañ si bo nañu te mën nañu dox kon su yalla dogalee yoy yep nak genn ñukoy muñal kon tay soxna ci ñong lay gëreem bu baax di la ñaanal yalla ning ñu taxawoo man daanaka mën na wax ni daf ma jappé wu ma sax may sa mais daf ma jappé ku mbokal nday ak baay man na wax ni lim may wax sax xeyna du ci yegg ak may sa mulabul khulum bëgg ñëpp lillaay muxtasiban di jokk it ku ko dok fu mu toll tey ko bëgg waaye ren nak nu bëgg rek ngeen balnu kaddu gi ñuy jëk yëkëti moy dello cant ak ngeureum serigne Babacar Jara ci turu maysa ci turu kaseen waye ci turu mareni ci turu julit yi gox bi yeb babakar ñi ngi and ñun ñep di wax jerejeuf yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ni bu la nit defalee nga new katan ci fay ko ne ko jazakallahu anna khairan, kon nak jazakallahu anna khairan, ñun waa yeb ñi ngi and di wax yalna la yalla fay yiw sa tanki ñew ak delu yeb yalna ko yalla def muy fajuk aajo zahiran wa batina taxawaay bi nga taxaw fii tey bégal nit ñi ci yonent bi bégal nit ñi ci Cheikhul Xaaji Malick bégal nit ñi ci maam Khalifa Babacar Sy jàll ba Kaolack bégal nit ñi dem ba Touba bégal njabootu Cheikh Ahmad Bamba fa tabaarakallaahu ñi ngi ñaan yàlla na nekk yokkute ci yow ci biir nag ak ci biti ginnaaw loolu samay kàddu dafa jëm ci sama waaj yi di sëriñ Maysa lépp loo seede ci moom rek Babacar yow mi ko wax xam nga ko waaye man mi la jiitu ci moom xam naa ko wax nga ne may sa gor la ay gor ko jur mu juddu ci seen biir waaye gore damay wax ni man wala sama famille man ak kase yeen du ci ñun ñi dafa jiitu jóge nañu ci ba tàyyi dem jëllëg te jëllëg googa mooy cosaanu sunu duggug maam ci biir diine lislaam te ci seen maam la jaare loola nag fàttewuñu ko ba tey dañ koy jàpp Tafsir Babacar Diouf da daan wax ni jootaay bu ngeen dem fekk fa sëriñ Mourad Mbay jox leen ko cër bépp te mooy seen nijaay yéen kon kase yéen ak njuufeen du tey démb la ñun lu ñu ci def rek dañuy jéem mott li alhamdulilah nag bi ñu yàlla dimbalee ba ñu xam ko waaye ñoom it nag ñu xam ko ndax ñom buñu ko xamanté ñun xamuñu ko du mat ñun buñu ko xamanté ñom xamuñu ko du mat tay nak nekatul ñun ak ñom ben bop rek yalla diñu sutural diñu sutural diñu sutural ba bëss ku soqi ko ci kaseyeen jël njabotam jox ma ma nek ci di las la seeg ñoom ba ñu alquran tari alquran ñi ngon ci jotaay bi sank kon loola la mag ñu defoon demb moy rogalaat ba ci ñun wallahi shahidallah yal nañu yàlla dimbali ba bu mu yàqu ñun moom yaakaar nañ ni du yàqoo ci ñun ndax ñun ñii yàlla boole nañu fa tabarakallah ni ko sëriñ Babacar waxee sànq ci moom la doore man moom tafsir Abdourahman ñoo daan nekk ci néeg ba di ataaye nekk ci suñuy téere ta waaw ak ak yi des yëpp tafsir di ko def ñu ñu ñu bokk ko yàlla di def ba may sa mii sama ànd ak moom jikko la li ma ko magee bari na trop may sa mii li ma ko mage bari na trop yéen ñëpp sax laay wax ba ci Pape Khalifa li ma leen mage bari na waaye man aw ma mag aw ma àndandoo ci âge man jikko rek laay ànd ak nit man ñi may àndal gën a sincère sama ànd gën a dëgër ak ñoom ñi ci ëpp maa leen féete mag ñi ci ëpp mën nañ maa jur man ma bari ay xaritu màgget su ma leen di seeti su ma nee ñett laay seeti tey kenn laa ciy gis ndax bu ñëwee daf may téye may waxtaan di waxtaan di waxtaan ba mu foofu guddi ma wàññeeku bu subaa ma seeti keneen bu ginnaaw subaa ma seeti keneen ndax mak dafa sincère ba dootul sekk ak yow wor su ndaw nak nekké ndaw am jikkoy mak ñooñu di nga mëna and ak mom na ngay and ak mak ñi taaxi gi mëna fi tuddu mak ñu bari ma leen di seeti kenn par kenn par wèr ndax mak du wor waye bu ndaw amee jikkoy mak nak dina neex andal lolu mo def sama and ak yeen man duma and ak nit ci ludul jikko may sami nak am jikko jo xamni ne ku japp japp na la lolu mom yalla def nako dama koy tooñ sax di ko wax ni ciment laa ko tudde man benn yoon lay tooy jeex na yàlla dafa def fan yi may seetaan vidéo yi ndax man dama bëgg archive jumaa ji ñu ma jox ci première xutba ba ci jumaa ba ci première xutba ay day ni ma di ko suivre di ko suivre di ko suivre waaye chaque fois damay gis moom détermination bi muy àndal ba bii ba bii ba bii mooy déplacé fii ñëw sama kër ñu ànd dem julli ci aljuma bi passé fi la taxaw ñu bu ñu ñëwee jël ko dem julli ji bu ñu ba fi waccé ko bi sax dama ko yóbbuwaat ba kër ga ni ko oustaz babacar waxe yenn kon and bobu yalla ngi def fa sama and ak mom moy sama and ak mom ak serigne babakar moy sama and ak mom ak khalifa moy sama and ak mansour ndax buma ko gissé à travers mom ma ngi giss serigne moor mii à travers mom ma ngi giss serigne babakar à travers mom ma ngi giss jigen ñi ci kër gi kon li babakar wax ci mom ni nit la ko xamni ni katu yalla la man xamna ci dara may sa jaamu katu yàlla la ben fonku na ay faratam fonku na faratay tariqam lolou man xamna ci lu wér ñaarel ba limu wax ni ku doylu la may sa la tak ci samay xarit amna ci ñeneen sax musuma wax abal ma nangam ci xaalis wallahi al azim may am soxla ñëw ni mo oustaz abal ma nangam dedet te borom keur la ko man man damay xëy jaaxle léeg-léeg ma jaar ci ku melni Ibrahima jallo ni ko abal ma nangam ma mo sëñ mbay kase ni ko yone ma may sa mak mom fiñu ag àgg yépp sequñu loolu maag ndax mom moko doxalul suñu digënté té nak teranga bu nek dina joggé ci mom ñëw ci man teranga bu nek dina ko jéem def jëm ko ci fay tàkkusaan gi nak nga xamé ni mom la tafsir abdourahman gay di defal suñu jeeg ji te señ babakar mi diko way man may sa kasse mi dëkk ci koñ bi di doomu koñ bi incha allahu taala dinaa leen jox cent seize pour barkeeloo ko ci tàkku tàkkusaan gi ndax nag isa du final xayru jaazal mannu nit bu dee def lu baax da ngay xam ni lii muy def nii lu baax la bu dul dara di Adja Mbathio Sóore mi nga xamee ni mooy suñu mooy suñu lépp oustaz Ndoye Diouf teg na ci beneen téeméeri seize muy deux cent seize gi jàpp leen ni oustaz dimbalee na ma 116 yi ma war a jox waa tàkkusaan gi ak 100 yi ma war a jox muy 200 incha allahu taala ndax koñ bi fi la dëkk fi lañu ñu juddoo imaam fi la ñu dëkk waaye fi la ñu juddoo fi la ñu teraanga yépp fekk yépp moo tax bis bi bu ñëwee man am na ko ni ma sa tàkkusaan gi ndax da ko utal budget man ko yonent bi mooy budget bi sallallahu alayhi wa lu fi ñëw ma ni mbaa ci sóor a jëlal xool leen loo def ngeen def ko ci man bu ma ci amee benn benn benn benn benn benn ñaanu mag yi tëdd fii ci armeel yi loolu moo ëppal ay milliards te am naa ko ci ndax boo leen gisee tànt bi ki ma jox chaise yi wax naa ko sànq bu lu woon a gàmmu Serigne kër bi waa personnel bi demoon ma yërëm leen imam dani ma woon base décoration 516 VIP laa lay indil ak lu ko transporté man am naa nit ñi moo tax it am naa ay milliards ñàkkuma dara sama mag yaa ngi nii ñoom ñëpp a ngi nii toog amul ku ma ci guddilul amul ku ma ci bëccëgulul te ñoom ñii ñëpp seen allahuma rek doy na ma sëkk. damay gërëm ko xamé ni ko spécial la ci man kasse ki ki sa ginnaw ni ki nga jakarlo ni dina la tuddu de ki moy Adja Kumba Bey di dom ci suñu baye Cheikh Tidiane Bey école la nek ren la fa ñew madame Diop ngi ni tok waye bi ñewé dafa dajalé personnel bi yépp ni len école bi mako ubbi waaye oustaz mii mooy kilifa gi ñépp la dajale jóoba gi nii lu ñuy décider ci école ba danaan bàyyi leen ba oustaz ñëw moom it mu bàyyi lépp déplacement am ak dérangement am ñëw ci bis bi ànd ma dem jóob mii Diop yàlla na yàlla defal leen jàmm boroom këram moo ma jox sées yi ni ma ñaata sées nga soxla man ko man de xam naa ay ay trente sées wala xam nga damaa xaw a xeeb sama bopp nag te tuutiw ma nag tuutiw ma mu ni ma dinaa la jox deux cent chaises ku ne xam na ni tey ñi fi toog ñëpp def naa leen ay VIP gannaaw bu borom bis bi doonee VIP nag macha allah yal yàlla laf cat moom moo moo ma jox chaises yi boole maag chauffeur mu yàpp oto bi. indi ko fi waje mo don wo legui ni ma oustaz jëlal sa temps heure bo pare nga wax kon mang Ekolbo koy ñaan papa lassal yalla na yàlla taxawu yalla na kartanal la école bo xamene bo ñewé borom école bo mo lay pey ndek te bo ñewé mu la oustaz duggal ci bir wañ wi ñu togg ñaari barada bala ñuy def cours te ku na xam sama ak ataay waaw ren la fa ñëw no yagguma fa ren la fa ñëw ajaa kumba yalla yalla fay la tabaarakallaahu Babacar Thiam ku spécial la ci bis bi kase mboolem carte bu ma defar Babacar Thiam moo ko defar man ko lu ma lay jox mun ma peer doo ma jox dara bis bi man maa ko xalaat organise ko fii ci koñ bi gis ci mag moo xamee ni njabootam mu ñu ngi fii ci jotaay bi toog ma gis ko ci anam boo xamee ne anam mu sant yàlla la loolu moom moom ma inspiré imam ba ma organiser bis bi yaatal ko kër yi kaw Kawsara Abdou Ndiaye ngi nii toog jóge ba kaw sara sama mbokk yi ñëpp ñëw nañu ndax man ku ne demal naa la man bu ma wootee ñëpp moo war a ñëwal kase wax na ko léegi du sama mag ñàkk fayda de li gaa yi jàng laa jàng terewul ma xam sama bopp nag ba fu ñuy limee oustaz yi dinañ ma ci boole waaye duma dugg ci benn détail li tardeel ñëpp mooy détail yal nañ ci yàlla muccal macha allahu taala yal na yàlla barkeel këri kaw kaw saram Medina Fall ñëpp sant naa leen daaw damaa def benn teraanga mais ren yàlla dafa dogal dinaa def ñaar ndax ku yokkul rek yaa wàññi lii may bëgg a def bu ma ko defee ñëpp dinañ xam ni ki ma koy defal jar na ko ndax ku spécial la ci man koo xamee ni ñépp xam nañ maak moom ñépp nag ñépp waaw ñëpp ma jàppee ba léegi bàyyiwu ma man it ba ma ko jàppee ba léegi bàyyiwu ma ko kon yàlla yàlla guddal fanam yal na yàlla sàmm ko yàlla yàlla taxaw ko waa Ndakaar yu gis naa leen yéen ñëpp gis naa leen koñ bi gis naa ñëpp yàlla na yàlla fay leen da sëñ Fallou Mbacke waxoon rek ba mu rombee waaja ñu poñe ko bàyyi ci ñaari junni poñe ba mitt lool sëñ Fallou daal ni waaji arrièral daa mel ni kay ñu ngi koy fitnaal lu xew kii de dafa ma ameel ñaari junni boobu ba léegi di ma dawloo tey nag dañoo daje sëñ Fallou ni ko bàyyil poñe bi mu bàyyi poñe bi mu yëkkati ñaari junni yi jox ko ni ni chauffeur bi avancé la waa di daw di dàq oto bi chauffeur bi ni ko sëñ bi daa mel ni kay mu ngi dàq oto bi de mu ni ko benn baat rek la ma nar a wax te xam naa ni xolam wax na ko mooy merci waaye yéen ñëpp dama leen di wax merci beaucoup yàlla na yàlla fay leen kase kaay sëñ baabakar sëriñ Babacar xam nga ñëpp kase lañ leen di wax waaw waaw lii mang ci mang koy def nak di ko defal ñepp ñepp ñepp ñepp ñëpp macha taala di ci wuutu Cherif Dame Aidara ki ma ko nar jox bu ma ko joxee yàlla na doon biye makam ci mom ba bu ne yëkkati ko ñaar سواها وعساها أن تحظى برؤية قار هي إثمر العينين وجلاها sama xam nañ ma ak moom heure bu ma génne guddi këram laay dem madame Mbodj 2015 lay dem Maroc imam woo ma ba ma ñëw mu ni ma sama kër gi yow laa ko dénk dénk naa la sama soxna dénk naa la samay doom en 2015 photo bi ba léegi mu ngi ak man imam yàlla na yàlla taxawu la suñu diggante yi ba ma jàppee ba léegi bawoo ma manit it ba ma la jàppee ba légui bawuma la lepp mako yor ndax réussite am moy sama réussite bisam bu ñëwé dama naan leen bis bi sama bis la wa daara ji tay fi lañ yenn kon yalla nga ko rappal bu bu né mu doon tabarakallah bie mak wa bi nak dama dama am ko xam ne ni moom it spécial la ci man bo gisé li mo sol ak li ben lañ Imaam kii ki ma koy bëgg a defal ku sori la ci man Pape Sarr ngi ne mooy sama tailleur bi ma commandé tissu bi dama ni ko na fexe ba ñaari ñaw yi bu ci dara wuute bu ci dara wuutee duma la fay man damaa naqari dire waaye du ma tooñ jox ko motif bi ni ko ñaari yi na na nuroo ndax ki ma koy defal kenn la ci man te xam naa ni yaa mbaacoo ngi fii tëdd xolam dina sedd lool ci ki ma ko nar a defal muy kan muy sama rakk di sama tafoo sëñ Babacar الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله على كل حال الحمد لله بنعمته تتم الصالحات خم قال لي ما يبغى من مكوان بنيجين السماء قل ميسا تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يعني يلا بدو سينفع ما يسين يا ينجين خمكو bu ngeen ma jaaxaloon dina métti loolu ci man waaye jaaxalu leen ma benn yoon la kon yéen a xam li ngeen di bëgg ci àddina yàlla na leen ko yàlla defal lii mënuma ko woon a bën génn ci sama xol bi fa tabaarakallaahu yàlla na leen cat seexlu ndax nag Yamba ca kontaan na. ñëpp la liggéey Pam Xee kontaan na te Yamba ca ñëpp la liggéey dama ni. ca kaw ngeen jëm ca kanam insha allahu bëggoon it nag njaboot gu juboo fa tabaarakallaahu ngeen defalee nii doxalee nii mm. lii bu ma ko waxul woon bu ma tëddee du ma nelaw jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf baat bu gàtt la nag waaye ko deful dara doo ko dégg fa tabaarakallaahu joxe ngeen cër respecté ngeen seeni mag xam ngeen ñooy kan soora maali mu fi nekkul xam war ngeen di ko téye alaaji ko seen nga nee toog fa tabaarakallaahu bàyyi ma rek fi macha allah macha allah kon yàlla na yàlla guddal seen fan tey yal na leen yàlla la fal tax lii mënuma ko woon a bañ a wax sunu xel dal na tabaarkalla macha allah mm. dalal nga seen sunum xel loolu mënuma ko ci woon a bañ macha allah